asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag incha allahu bi ma fas yéene indi leen benn secret boo xam ne ci wàllu neexal diggante si lay dox luy rataxal ay diggante diggante moo xam ñaar ñuy sëy ñaar ñuy nekk te bëgg sëy ñaar ñi nga xam ne dañoo nekk gis na seen diggante mbëggeel bi wala ànd bi dafay des dafa nekk mbir moo xam ne dafa bari si jamono ji nit ñi àndatuñ sëy yi neexatul diggante yi nga xam ne dañoo rataxoon léegi rataxatul ay jafe-jafe xuloo jàppante te loolu baaxut kon yal yàlla rataxal diggante yi yàlla neexal sëy yi yàlla dimbali ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a sëy yàlla yombal seen sëy incha allah kon tey secret boobu laa leen di jox condition yi rek toujours mooy da leen di def secret yi si anam bu rafet nekku na da leen di jox ay secret ngeen jug di def rek di def waaye képp ku koy def na si euh, xalaat tray ba melem ne di ko def si anam bu neex yàlla ne di ko def si anam boo xam ne leer na ko ne li def nii jàmm yàlla moo ko si tax a jug te lépp mu si def bu si yàlla dimbale ba loolu sotti kooku noonu dana ko bëgg dana ànd si ànd bu rafet loolu moo am solo mais nekku na dañ koy joxe ku nekk da nga jure di ko def ndaxte ñun lii balaa ñu koy joxe dañ ci ñaan képp koo xam ne yaa ngi siy jug def si naka ko dul noonu li ngay def yàlla boo si gis dara incha allah kon nag képp ku si jublu lu baax rek li ngay def yal na ko yàlla sottil kon secret bi Euh, yomb na li ngeen gis ni muy xaati bi ngeen gis euh, moom ngeen di bind maanaam bu si njëkk mooy da koy bind benn yoon comme ni nga ko gisee nii nu koy bindee dañ ko wërale ak qul huwallahu ahad allahu samad si suuf lam yelit walam yulat walam yakun lahu kufuwan ahad moo fa nekk si suuf loolu moo fa nekk bëgguma ku may woo di ma laaj naan ma si suuf la nga fi bind si suuf lam yelit walam mu walam yakun ku kufuwan ahad moo fa nekk su ko defee saatu samat bi saatu samad bi maa ngi ko yaatal def ci français ton nom son nom ton nom mooy ki nga xam ne moo bëgg moom la bind turam ci kaw si digg bi mahabba moo fi nekk mooy si arab mahabba nga bind turu ki nga bëgg si suuf su ko defee nga tëj saatu samot bi soo ko tëjee nag après da koy lem ba nekk téere nga takk ko su fekkee ne mën nga di wirda allahu qaxaaru jaameew ci lii mu turu ki nga bëgg maanaam turam ngay jël ak santam nga isaab ko chiffre bi mu la jox nga di ko zikr si allahu qaxaaru jaameew jàngale woon naa ko nag jàngale woon naa ko fa ngeen dem xool sama vidéo yi ma joxe ngeen xool ko ngeen def ko kon ni ma ko waxee ni ñu isaabee tur ni ñu xamee chiffre boo leen defee benn Maxtal bëgg xam sa limu tur bu ngeen ko defee da ngeen ko gis léegi beneen bi nag mooy da ngay bind bi bi beneen la mais da ngay bind xaatim bi ni nga ko gisee nii ni ngeen ko bindee tara juróom-ñaari yoon si kayit juróom-ñaari kayit ngeen koy bind comme ni ngeen ko gisee waaye nag fii saatu samat bi foofu doo fa def sa tur ak turam foofu turam rek nga fay def bu dee Fatou Ndiaye la tudd bind fa Fatou Ndiaye bu dee Samba Diop la tudd bindal foofu Samba Diop turam rek moo fay dugg turu ki nga bëgg moo xam sa jëkkër la sa jabar la ki nga bëgganteel la soo soo ko bindee ba mu nekk juróom-ñaar nga xoj ko def ko saafara nga ut set sept parfum yoo xam ne amul alcool juróom-ñaari parfum yoo amul alcool nga xoj ko si saafara bi dégg di ko raayoo ba tey ngay def euh, zikr bi tam kon tey loolu la ñu indiloon yal na yàlla may ñu dégg ak topp barke lépp ba suba incha allah asalaamaaleykum